salaamaaleykum amis et fidèles salaamaaleykum yéen ñi nga xamante ni yéen ñu bàyyi xel à travers Dakar Buzz nekk ci réew mi ak ci bitim réew ti leen ak jàmm tey nag euh, ma am mbégte mu rëy rey euh, dalal koo xamante ni wala moo ma dalal sax euh, ci place bu yànj bi nga xamante ni fa lañ toog war waxtaan ak moom ci li nga xamante ni moo di carrière am war waxtaan ak moom ci jafe-jafe yi nga xamante ni dund na ko mu doon loo xamante ni nañ ci waxtaan ak moom ci wàllu carrière musicale bi nga xamante ni moom la nekk di def stand by bi lan moo ko waraloon. Euh, ba ñu gis ko mu génn benn single am yeneen affaire yoo xamante ni mi ngi koy waaj euh, lu ci mel ni euh, lëmbal loolu yaakaar naa ni bu génnee Jamra dina ci jël kàddu parce que bii clip ma ma ma gis affaire yi réew mi réew mi réew mi doy na waar xale yi dañuy jàng dañuy jàng milieu waaye Lady Mounass indil na leen dëgg-dëgg milieu Lady maa ngi lay bu baax a baax di la jox sa wàccuwaay di la bàyyi nga ñu yokk ñi nga xamante ni ñu lay seetaan à travers Dakar Buzz. maa ngi leen di dalal di nuyu waa Dakar Buzz yëpp rawatina yow tamit Abdou Saliou di nuyu internet bi yëpp voilà di nuyu Mouhamed iPhone sama xarit voilà. <laughs> Lady euh, bala ñoo dugg ci biir waxtaan bi dëgg est-ce que mën nañ xam parcours Lady Mounass parce que Lady jékki-jékki na fi rek defoon fi benn bombe à traverser clip bi nga xamante ni c'était trop sexy ba Sénégal yi ci loolu lañ ko xàmmee sax euh, mu doon loo xamante ni euh, phénomène la boo fi indi woon tey mën nañ xam carrière bi fan la débuté ba tey fii nga yegg si fii tey. ok hmm, man maa ngi commencé musique depuis yooyu mais. yàgg na yàggul donc dama musique dafa nekk sama passion tu vois dëgg la à part musique maa ngi liggéey mais musique dama ko bëgg di lu ndaw peut-être mun na nekk passion mun na nekk tamit doonu mhm. parce que ku jur sama papa alpulaar naar ñëpp a ko xam da mhm. doon woy Koli Sall mhm. kooku moo jur sama papa may nuyu sama mbokk alpulaar yëpp donc euh, voilà quoi musique dama ko bëgg daal sama deret la nekk mais musique da ko bëgg te nee nga ki nga xamante ni moo jur sa papa daf doon def li nga xamante ni moo di musique est-ce que tey est-ce que tey bi nga ciy dugg parents yi amuñu woon jafe-jafe ak yow naan la doo def musique da ngay continuer jàng wala yow da nga nekkoon xale bu terrible rek. <laughs> non dëgg c'est vrai que début bi bugguñu woon parce que man avant may def musique dama doon défilé man man kenn laa dama doon défilé amoon ay kii yi bëri doon am concours dama si doon bokk dama mës a nag. yéen a ngi fàtte am na émission yu daan am ay vacance à domicile mooy bi daan def Walfadjri xeex si buru genre yooyu ak kii euh, relève bi. Uh-huh. bi TFM door a ubbi amoon na benn émission bu doon am bañ na ku nekk da ngay toppandool ku la neex si kii artistes yi voilà dangay ngay toppandool ku la neex léegi yooyu laa njëkkoon a bokk uh-huh. maa fa nekkoon ku mbagaw la te yàgg naa rampe tu vois. Uh-huh. mais à part am na leneen tamit lu may def. à part musique lan ngay yëngatu. man maa ngi liggéey à part musique parce que benn jour maa koy ma ne la musique boo amul xaalis munoo koo def. Mhm. donc euh, man business woman laa damay liggéey maa ngi am sama boutique tu vois su ma demee voyage aussi comme ni may def ut ay bagages jaay mais musique aussi dama ko bëgg passion la ci man tu vois voilà. mais ñu xàmmee la ci clip yu sexe yi nga xamante ni moom ngay def euh, te aussi euh, ku ne ku ne lay di menace xam ko ci euh, famille Haalpulaar d'habitude critique yi bu baree est-ce que nan ko koy dékkoo ak way jur yi du neex moom parce que sama yaay moom <laughs> te moom xam nga sama yaay mooy ndeysaan genre mère yi nga xam ñoom yëguñu dara lu ba moom amul problème. Mm-hmm. du yëg lu bëri mais neexul chaque jour yenn saa yi gars yi surtout lu ñu may wax. si mm-hmm. net bi lu génn photo shooting ma defee. ñu woo ko ne ko xoolal diw lu mu def. dama koy ne bul déglu wax ñu man musique dama nekk ci aar donc mbubbu aar dafa am ak bu professionnel sa kër. li ñuy gis peut-être man boo gisee sax yenn yére yi ñuy wax dafa sexy peut-être li ma def man ak kii naa la nga. te boo seetloo man yére yi may sol yëpp maay solal sama bopp. maay habillé sama bopp lu ma mës a sol maa solal sama bopp. ba si prix yi parce que dama yor boutique. donc nit ki nag. sol lu bon taxul nga bon sol lu sexy taxul nga bon mm-hmm. est-ce que comprendre tey mënoo dem concert sama style musique bi may def afrobeat afro dance soul comprendre nga ak ama piano mënoo mm-hmm. di woy lool ba pare di tuer bëgg a sol ay grand mbubu voilà donc merci mm-hmm. ku nekk da ngay méngool li sa yaram miin parce que boo amee yaram bu jongoma am ginnaaw am kanam danga da nga koy mettre en valeur di sol loo xamante ne dalay gën a rendre bel mais munoo munoo mool am ginnaaw bu baax. am wér kan moo la wax da ngaa man xanaa sama bopp man sama ombre mooy sama xarit su ma soloo ba jekk damay janoog seetu jàkkaarloog sama ombre duma laaj kenn sama ombre mi ma janool laay laaj nag waaw mu janoog man. moom duma jay daf may wax dëgg. ah mu ne ma li nga sol dafa jekk. mool nga. moo tax du laaj kenn sama ombre mooy sama xarit chaque jour moo ko ma ne la aw ma xarit aw ma àndandoo dëgg la na soo bi nga am ñoo xam ñii say sœur lañ am naa ñu baax ñoo xam ñi ngi sama ginnaaw vraiment aw ma seen fay mais xarit dëgg-dëgg mooy sama ombre. gis nga boo xaritoog sa ombre doo am problème. du la war du fen fooy mënta dem si àddina moom ngay gis man sama takkandeer mooy sama xarit. su ma seetoo du ma jay def ma yow su baax looy rek damay sint mi xam nga ma dama amee ay rab. <laughs> barke alxuraan tey laay dégg dégg de. rab yi ñoo lay la. <laughs> yenn saa yi nag ma solu ba pare rek jékki-jékki taxaw seetu bi rek ma dindi. parce que rab yi doon la baaxul. <laughs> yenn saa yi nag ma solu ba jékki ñi ah bii baax na. mais euh, ci euh, temps bi nga xamante ni yaa ngi def musique ñu jekki-jekki gis la benn euh, laps de temps nga def li nga xamante ni moo di Stone By Stone By boobu lan moo ko waraloon nga jekki-jekki rek daw scène musicale bi. waaw loolu c'était l'année dernière donc boobu xam nga dëgg la sëy boo j'étais mariée voilà nekkoon di toppatoo sama borom kër. ba pare ak en plus ak liggéey bi nee naa la musique dëgg la baax na neex na mais foog nga am mooy te surtout koo xam si ñëwul si benn label man suma ma produit toute yoo xam nga loolu Abdou si ñëw ma si benn label ah sama xarit la ngoog <laughs> Paco <laughs> yaa ngi dégg si ñëw ma si benn label man su ma produit toute seule donc loolu day métti surtout si jigéen te ku ne xam na ne bi Sénégal yombul mhm. dafa métti rawatina nga doon xale doon jigéen da fighting di rayante mhm. loolu moo tax yenn saa yi ñi may gis ma pause. voilà ci stand by boobu euh, jëkkër dikk. liggéey bi gën a yokk euh, mais est-ce que sa jëkkër daan na la permettre pour nga def li nga xamante ni moo di wàllu musique wala yow yaa bëggoon euh, toog euh, gérer foyer bi ne ah sama jëkkër daal mooy priorité xaaral ma ñeetu ko en avant pour mën a toppatoo ko bu baax a baax. waa hmm. nga góor ñi moom mooy loolu mais moom moom vraiment ba ñu ko woon mais peut-être fiir parce que artiste boo ko takkee nga bëgg ko fiire day metti comprendre nga peut-être ñoom loolu moo tax parfois sa ñaar artiste du loolu parce que nit bu la fekkee ci sa liggéey. Mhm. ngay tukki mu fay la sa liggéey ngay am nga ñëw mu bëgg la xañ loolu xam nga man yenn yi damay naan soxor la tamit est ce ma fi may waxee. voilà mais yàqul dara ci sama liggéey sëy sëy la leneen leneen la. mais yow sénégalais sénégalais nga amoon wala française. <laughs> non yooyu duma si wax nañ wax leneen loolu nañ ko tëb tuuti. affaire sëy bi divorcé naa divorcé naa non laaj ma beneen question. non mais Lady mais Lady defal ndànk xam nga lépp loo gis ci àdduna dañ koy waxtaanee te man samay waxtaan damay bëgg mu jur njariñ ba ku ci nekk mën cee jëli dara euh, tey yaa ngi doon sëy suñu borom def na nga nga divorcé euh, ci divorce boobu yu bari dégg nañ ko ci man sax dégg na am na sa benn xarit boo xamante ni fii la jóge Dakar dem tournée ji xaw ma Thiès euh, doon ànd ak ñoom équipe bu Saneex après moom ci suuf jël sa borom kër loolu aussi il faut que ñu xam ko parce que euh, li nga ne xarit amatul loolu day confirmer li nga wax. waaw mais loolu waxoon naa si ba pare yow xam nga lépp man du ma wax di waxaat waxoon naa si ba pare te wax dëgg yàlla loolu enterré naa ko dama ko enterré xam nga suul naa ko léegi nañ wax si leneen sëyoon naa tas naa divorcé naa. jeex na. sëy nga waa waa defal ndànk sëy nga tas nga divorcé nga on parle plus de ton mari mais xam nga dafa am ay coups yoo xamante ni ci àdduna lañ ko fekk te dañ la ko cay def ci sa ci sa ci sa après sa divorce euh, jigéen boo xamante ni yaa ko présenté sa jëkkër dem ba ci biir après moom mu lay suufu di génn ak sa borom kër. mais kooku boppam la def di donc du ma si waxaat déggoo kooku du sama xarit kooku daanaka presque tata la ndax mun na ma jur mais man si ay coups laa dëkk. loolu ngay wax ku bàyyi man si laa dëkk chaque jour mooy loolu moo tax ma ne la léegi bàyyi naa ñëpp aw ma xarit aw ma àndandoo kenn mooy sama xarit mooy sama takkandeer. ndax soo seetoo moom ngay gis. mais kooku yow kan moo la ko présenté woon ku jigéen kooku nga naan tata. non du ma si waxaat Abdou Saliou man du ma wax ak kooku kooku pare naa si moom mère boobu kooku du xarit dama ko def comme sœur comme sister mais pare naa si du si waxaat nañ wax leneen sama jëkkër ji dañ doon sëy yàlla tax tas nañ man àpp naa ko ba diis jëkkër. dégg àpp naa ko ba fukki jëkkër wala ba ñaar fukki jëkkër góor da ngay ñëw nga bëgg ma te yàlla tax paada de saaga pas xeex ndax man mii ngay gis nii bokk ma si xale yi ñuy dóor de boo yëkkatee sa loxo bëgg ma dinaa la song xeex ak yow man góor du ma dóor de Abdou Saliou nga ko maa ngi nii du ma lettu perruque rek laay takk man góor bu yëkkati loxoom ndax ma dóor dinaa la dóor ba toog sa kaw man boo naree ñëw bëgg ma dóor wala nga ne danga may saaga dootoo ko defati kon yow tu es contre ñu naan munaas amee rab bëgg sëy naa sëy de mais dafa am góor yoo xamante ne ñoom boo bëggul woon soxor sa ñoo lay def nga soxor parce que yow parce que yow munoo munoo fekk doomu jàmbur ndeyam defar ko ba mu rafet te xoolal loolu lañ bëggee xale bu mool après amoo yaram bu rafet amoo looy def nga naan da nga koy dóor di mbéj boo ma dooree dinaa la dóor ba nga tëdd man góor du ma dóor de dañ ah, ko amee àpp naa ko nag ba fukki jëkkër mais lan moo tax nga am ki ma war a toogal dinaa toogal damay toog tubaab bi moom tas nañ yàgg na loolu mi 2018 boobu tas naa moom Gambien bi tas naa ak moom voilà. mais tubaab tubaab bi tubaab bi sax foofu dañ dañ fay ñëw dañ fay dañ koy kii dañuy dañuy off tubaab bi parce que. ba ba ay ay. ñi ay jot a sëyal yëpp tas naa ñi ma tasal du ma yàgg seen dara ah. mais am na yoo xam dafa rafetul maanaam dóor ak saaga fu mu nar a jug moom jaamu du fa am. mais da nga mës a dund ko la dóor wala ku la saaga. ku may dóor yow man ku may xool du ma dóor. da nga gis sama yaram bi am cicatrice man kenn du ma dóor saaka ndey sax ba ma ko saagaa dootoo ko defati kenn du ma dóor ah xam naa loolu moo tax nag gars yi naan gel bii dafa pang dafa amee rab du am rab de damaa am sama fulla pour lan sama ndey baay dóoru ñu ma ñi may dóor xale yi jigéen ñi ñuy dóor ñuy nopp fii dañoo noppi rek man kenn du ma dóor. mais kon yow da nga contre xale yi nga xamante ni wala da nga d'accord ak ñoom ci génn bi ñuy génn. Ah dañuy génn kay bien sûr. pour lan nëppal nëppal bi dafa bëri yoo xam nga ni damay lutter lutte contre violence faite aux femmes donc man pour lan jigéen waroo ko dóor ba ci xale bu ndaw pour lan jigéen du pour dóor yow déjà ki ngay janool di dóor moo jigéen mooy sa yaay mhm. mooy seen jabar mooy seen pourquoi ñi jàpp maanaam bi ñuy def jigéen ñi moo bëri fii Sénégal te gars yi ñu ngi koy bay bayal mais est tamit yéen a ngi sëy parce que léegi menace ba ngi bu ma jàkkaar lool mu ni ma su ma amee jëkkër àpp naa ko fii ba ñaar fukki jëkkër boo judduwee nga doon jigéen ñu ne kii dafa war a sëy ku tàllal bu dee ñett ñoo tàllal seen loxo ñett ñooy da nga sëy nga bu dee kenn ca ngay yem sëy bakkan la bu waree dagg day dagg est-ce que comprendre néegu sëy dafa metti de nit ñi nag dañu dul comprendre parfois di nga dem jigéen lu muy daj si néegu sëyam am na jigéen yoo xam dañu am sutura bu ñu bu jigéen yëpp doon wax réew mi yëngu yéen ñi génn rek ngeen gis mais ñu génn gul ëpp fuuf ah, ah oui am na jigéen yoo xamante ne fii bu ñu waxee nga fàtte problème mu diw wala problème mu keneen yow nga yor sa jabar normalement xorom sax waru ko jënd ta ngay kili kilifaam feet du jot ba nga defal ko dara boo waxee nga tegal saaga nday mbéj ñi naan muñ muñ ba xëy dee ñi dajji sa ngaam wala ñi gumbaloo la am na góor yoo xam noonu lañ iñaanee bu ñu la fasee du ñu bëgg beneen góor jëriñoon dañuy bëgg a damm sa bëñ wala pattal la ay man bu ma dajeeg yooyu góor <laughs> man góor bu ma doo dinaa la dóor ba nga tëdd bañ naa ko ba duma léttu man góor du ma dóor de. mais mais attends Lady euh, xam nga euh, d'habitude yéen jigéenu Sénégal yi wala peut-être yéen ñi nga xamante ni yéen nekk artistes yi euh, ni ñu leen bàkkantale mooy bëggoo leen a sëy parce que ñaari fan ngeen di. waaw mais ñoom man du. dafa ñaaw déglu ma rek gis nga jigéen bu bañ sëy du du bëggante. mais déglu ma ma wax la jigéen bu bañ sëy dëgg doo bëggante bay dem ñi lay ñëw di la maye. kon da ne xaaral ma yem si génn bi nii rek mais ku dem ba yóbbu nit présenté ko ay waajuram ba ñu indi la wargal takk la yóbbu la kon kooku pare na pour sëy man mi toogoon un lu teg wax nga kenn gisatuma woon dem ba toog Gàmbi presque ñaari at ñaari at presque li ko maa ngi bëriwul dem toog yéen ñëpp gisatoo leen ma ma effacé wu carrément kon bëgg sëy xanaa ba si man la fekk baax bàyyi Gàmbi nekk ko fa ak yaay nekk foog fa papa du kenn bu sa bët xonkee koy waxal waa léegi bëgg sëy mënul weesu loolu dem ba Gàmbi gële xale boo xam dakaar gii la juddoo maa ngi dakaar bàyyi yëppam kon kooku da ko war a tëye paa wax bu ñaaw wala lenn nee naa la fii lu feeñ ca néegu sëy ba nu yow woon na ca ngoro ga dañ ko fayul parfois sax di nga ne ni xaaral peut-être kii su ma duggee si moom naa ko jéem a changé mais góor bu bëggul changé du changé léegi nag dafa jot ñun jigéen Sénégal yëpp ñu mànkoo kuñ fi dóorati si jigéen yow la ne kuñ fi dóorati jëlal yat ku la dóor ku leen dóor ngeen fayu mu jeex ndipp ndipp bi dafa doy xale yi génn da dañoo kii de dañoo sonn moo tax ñu wax léegi nag ab avec ça ñu naan non demal nga muñ yenn parent yi boo ñëwee wax sa ñu ne la doo dugg si kër demal nga def sa kër jëkkër dañoo war a enquête xale yi jàpp seen jabar yi di leen dóor comme ay mbaam man am na ko ma xam jëkkër da ko dóor ba xoolal photo yëpp maa ngi ko gis boppu sentir la ko doon dóor ay affaire fiiraange yooyu boppu sentir. waaw mais est-ce que jabaram moolul tam war ko fiire mais attends mais noonu la ñuy waxee boo fiiraange du loolu. nit am na noo koy naxtaanal gis nga jigéen amul problème jigéen moo da gën a mun a muñ góor mm-hmm. jigéen am na noo koy offrir ay cadeau dalal xelam mais boo ko dee def yéen day dem bala nga jël bopp seen ci di ko dóor jigéen ba kanamam ne barki démboo njaay lañ fi gis ki rey jabaram ba kañ ñun du ñu ay mbaam liñ ñu dóor suñu kër yaay ak papa yi rek dafa doy dañ doonee xale mais dóor boobu amaat mais léegi est-ce que. loolu rek moo tax ngeen gis ngeen naan divorce yi parce tamit ban ban jigéen moo mun a muñ dóor xanaa kay même sa dépense bu dul mot am na jigéen yu bëri yoo xam Abdou Saliou barke yonent bi gis nga jigéenu Sénégal fii du ma ne Afrique ñoo gën wala àdduna bi ñëw mais ñi leen raw si baax bëriwul. suba teel booy xëy del seetlu mairie fii maanaam jigéen ñi dañu gëm liggéey tellement surtout suñu yaay man bu ma xoolee sama yaay rek du man damay su ma meleen di sama yaay man sama yaay at mu ngi sëy sama paa musul su ma xoolee si meeru sénégalais yi fii comme non suñu yaay yi dañoo jàmbaar am na jigéen yu bëri ñoo xam Abdou Sall ñoo yor seen kër barki salaatul fatiha ñoo yor seen kër seen jëkkër bu ñu xëyee xoola balaa may de ñuy jaay responsable nag toog di tegle tànk te defuñu duulu mbaam seen biir kër yi li si ëpp seen jigéen yi ñoo ko jabar yi tabaski du jot ouverture de classes jigéen ñooy xotti seen i doom buñ la laajee depense lii nga yor ñu sànni la benn 2000 wala benn 3000 dafa mun a yor kër këru famille ñoom ñooy dem mottali di rayante di dëbb dëbbal pour suturaal seen jëkkër yi waa léegi kooku di la suturaal di la mottali sa dépense kooku di la suturaal di dundal ay doomam comprendre kon kooku jàmm nga ko war a may waroo ko si tegal ay door xam nga fu may wax Abdou que ñun ñëpp dañoo dund loolu kër famille boo kooku di la muñal di la muñal buggul sa sutura uññeeku am na jigéen yoo xam wallaahi Abdou Saliou sutura gu ñu am man dama ne ñii ñoo a gën a mën a muñ duñ leen defal dara mais ndeysaan dañuy tëye sax lu rafet yenn saay bu ñu waxee ñu ne sama jëkkër bi ma ko jëndal la laskalan dañ koy suturaal te fekk seen jëkkër deful dara am na jigéen yi def effort génn dem jox seen goro yi ah maa la ci fekk seen jëkkër deful dara bu ko defee yenn goro yi teg bët yenn njëkke yi teg bët pour ñoom seen càmmeñ mooy def lu ne seen càmmeñ deful tus lu dul lum lay reye dóor gu dégg ba cëg bu guddi jotee mu roqi roqal ba mu ba mu sonn li ñu xam si jabar mooy rokkirokal la ëmbal la loolu la ñu xam pour ñoom loolu mooy jigéen rokkirokal ni ay kanaara defaluñ dara seen jabari lal ba sangu tëdd laal ba sangu tëdd rokkirokal bu dul jeex mel ni kanaara defaluñ dara seen jabari mais léegi soo njëkkee yi teg la bët rakk jëkkër yi teg la bët nu mu koy defal fekk xamuñu kii lu muy liggéey di am seen càmmeñ dafa fa tus lu dul dóor guddi dóor ba cëg <laughs> d' accord mais léegi euh, wax jii ni ma ko déggee nii dafa mel ni da nga dund ay déception yu bëree bëri. pa si laa dëkk Abdou man déception si laa dëkk te pourtant nag dama mës a nekk femme battante ni nga may gis nii. xam nga parfois Abdou Saliou boo jàllee si ay méttitu àdduna da lay tax nga doon góor moo tax ñu ne munaas dafa am fitu gaynde man du ma ragal de. sànq rek maa ngi seetaan kii naa ma ay munaas ku la prank ma ne man ku ma prank fa la prank di yam ndax man damay xeex. dana ma soxor damay xeex de dama leen koy teelaw xaw ma ku may prank mais ku ma prank keroog la prank di yem maa ngi seetaan barki démb bébé Binta sama rakk ju baax jooju ñi koy prank keroog dama mer dafa mel ni man maa fa ne bu doon man ñooñu ñuus naa leen ñu tëdd man kenn du ma prank xaw ma yooyu ay kaf yi xam nga lan moo tax loolu am boo jaaree si métti Abdou Saleh man j'ai été victime du viol 2011 ñaari góor yàq sama àddina dama jaar fu métti est-ce léegi boo jaaree fu métti yow bu la góor saagaase da ngay fa yow. dalay jaay doole est ma que fu may wax loolu moo tax may soutenir jigéen ñi loolu moo may jàppale jigéen ñi comprendre nga voilà bugguma kuy toroxal jigéen bugguma kuy toroxal jigéen munoo dund si mettit yooyu ba pare nga bëgg tamit munul nekk mais déception yooyu dafa dafa dafa commencé déception yooyu rek am parfois da ngay dund déception sa kër famille ñi nga bokkal ak yenn famille yi nga xamante ne ñi si ëpp man si déception laa dëkk bugguma di wax Ah, mais li tax ma dëgër nii xamul leen ko dama dund ay déception si sa diggante say xarit ñi nga doon dimbali ñi nga bokkal nit da ngay wéet sa sa bopp yenn famille tamit foog ñuy jàppale seeni deret parce que fii kenn doful ah yenn saa yi da toog nga wéet sa bopp am na ñuy dund loolu nga gis xale dem ba màgg naan du ma defal dara sama fay non parce que nit dafay yenn saa yi ngay toog nga wéet ci sa bopp yenn famille ñoom bu ñu la soxlaa lañ lay woo bu ñu soxlaa xaalis dañ leen di xoolu ñu seen doom ndax mu ngi lekk mu ngi naan xooluñu seen doom si lan la nekk Abdou Salim man gaynde laa dama jaar lan moo def gaynde mais jaar jaar yi metti yi ma jaar man sama enfance dafa metti mais est que euh, taxawal foofu wa waa waa léegi da ngay taxaw foofu ñu waxtaan parce que y a beaucoup de jeunes filles yi nga xamante ni ñu ngi lay bàyyi xel xale yi dañu lay gis bëgg la parce que ci sa comportement peut-être ci ni ngay waxee ni ngay soloo dafa leen a neex am na ci jigéen ñoo xamante ni peut-être dund nañ li nga dund mënuñoo génn ci télé parce que amuñu fit bi euh, comme yéen sunu borom dafa leen a dénk nga nekk ay porteur de voix daf ciy baax nga ñëwaat tuuti ci histoire bi ñu mën cee tirer leçon pour yeneen yi nga xamante ni ñi ngi dund lu metti loolu. Hmm. waaw mooy li ma la wax rek fii koo fi gis tey ñi naan ñi koy joxañ nag am na fu mu jaar <laughs> comprendre nga te sant yàlla rek ndax nit boo demee ba toog bay nettali. loolu sant yàlla la donc man jaar-jaar yi métti yi ma jaar moo tax tey ma doon gaynde ma ne la moo tax góor du ma yeb du question dama bon de dama gaaw a gis sama bon góor du ma yeb te tey su ma nekkoon yeneen xale dem naa yàqu bu yàgg man na sama yaay aw ma fayam jigéen bu jàmbaare la yenn saa yi da ngay bëgg def dara sax mais boo xalaatee mère bi rek nga bàyyi yenn yi doo si mus dudd boobu heure boo toogee sa biir nekk di di jooy mais man dama am ay méttitu àdduna moo tax mais sant yàlla imagine nga doon xale ma ne la nga ñëw <laughs> bàyyi noonu këru maanaam këru famille boo gis ngay dund si këru famille sa yaay amul sa papa amul doole mu metti lool sa kër di am inondation lu metti laay wax yooyu yëpp nga koy muñ moment boobu disoo kenn même boo jëndul kaye sax ñu dàq la amoo moyen xam nga pour jënd li nga big sa bu nga bindee sa yaay di dëbb dëbal di rayante est-ce comprendre nga nga bokk ay concours pour mun a gagner dara dimbali sa yaay te boobu nga gën a nekk xale sa mag yi amuñu doole est-ce que nga fu may waxee ñi naan déeta waaye ñi siif la moment bi nga gën a bëgg nit ñi soutenir la ñëpp wan la ginnaaw lu dul sa yaay ak sa mag bu góor taxawu la foofu ngay jaare nga doon nit ku baax man Abdou Saliou liggéey naa sax fomp kër bi ma gënee nekk xale bu dee kooku mu ngi seetaan dina ma xàmmee Anne Maris ndeysaan dama bugg gis nga dama daan liggéey am na sam benn siste bu baax mu ngi pare léegi jëkkër tubaab la amoon nday Khady Dieng maa Khady Dieng maa ngi koy nuyu jëkkër tubaab la amoon man maa ko doon tëyal doomam chaque weer mu fay ma 30 000 bu ma fayoon dama daan dem Petersen dama mus sa nekk nag femme battante dama daan dem Petersen jënd ay saak ay dàll su ma ñëwee di ko leble weer ñu jox ma ngi dégg ma xeeb liggéey bi parce que moment boobu gis naa ni mère bi amul doole yaayu tamit papa xam nga say rak donc foog nga liggéey pour am dara benn jour mu ne dina ma utal liggéey loog set ma solo ba jekk ndekete liggéeyi kër lañ ma utal journée ma fomp kër gi lépp laa la wax ba sama ndigg bi di ñi pare mère bi yëkkati benn boolu ceeb bu ndaw ne ma toogal nga lekk si waañ bi ñoom ñuy lekk ma leen xool nii ma pare mu jox ma 3000 ne ma wàcc nga boo jaaree si yooyu fa nga am jom loolu paase nga du lépp la ñuy wax Abdou Saliou léegi yow méttit yooyu nga boole ko liggéey kër te ay xale ah di défilé ñi lay dëkkal fu bon nga dajek ay sambabo yu ñu yàq sa àddina xajatoo kër ma saar say mbokk sa dañuy toog di gaaral dafa taxawaalu mais fii kuñ fi violé bon du ku ñu bi violé rek danga nga mais bisu pencu day metti Abdou Saliou bisu pencu day metti ñun suñu famille ay alpulaar lañ te man ñoom début bi ma waxee sama problème viol sax dañ ma mere mais duma ko rus parce que teguma ko sama bopp damay wax pour ñeneen ñu mënul wax man porteuse de voix mais bi ma waxee sama problème viol nee nañ dama leen teg gàcce pour quoi ma koy wax mais attends man ma forcé pour ñu siif ma ay samba booy ñoo ma siif mais yenn famille dañu ne kii dafa génn xeet moo topp sow bis ma ñu siif ko donc euh, sama yaay daal laa xam ne man aw ma fayam fa voilà c'est normal ah parce que euh, quand tu parles sa euh, vécu et euh, c'est normal mu euh, demee ni mu gis ngeen coono yi nga xamante ni moom la daj juste pour dimbali ki nga xamante ni moo di way juróom bu jigéen lépp rek mu koy def ci daan dooleem waaye aussi tamit mu koy def ci loo xamante ni lu neex sunu borom la léegi li mënta ñàkk parce que jamono la ñu nekk te yaakaar naa ni. lépp lu ñuy def on le fait juste parce que nit ñi jëlee ci jariñ pour ñu xamante ni yéen jigéen ñi ay jàmbaar ngeen dëgg la fii benn jigéen bonul ku fi bon rek dañ la bon loo loo moo tax bu nit ñi toogee di yàq sama der si internet du ma saf parce que ñi nga bokkal d'habitude ñoo lay njëkk a yàq ñi nga bokkal benn deret man duma ma dof xale dinaa dinaa baale mais duma fàtte ku yaakaar da fàtte li nga ma def si sama enfance yaa ngi nax sa bopp dinaa la baal mais duma fàtte lépp a ngi fi sama bopp looy defal nit na doon jàmm te adduna bi léegi day tourner bul buy tourner la loo fi def njabootu jàmbur bis bu say doom màggee si ñoom lay këpp lu ne waxal nañ ma ko fi donc euh, nit ñi dañ doy waar Abdou Saliou loo moo nag ñi naan ki dafa tàng fekk tàngul dama am ngëm-ngëm voilà euh, mais carrière bi euh, parce que ya sama génn nga fi benn son aussi yaa ngi waaj benn clip bu tudd lëmbal euh, lëmbal dance lëmbal pourquoi lëmbal dance et que jamono bi nga xamante ni beaucoup dafa am génn nañu di wax jafe-jafe ñu dund seen biir néegu sey lancer un message pour góor ñi bàyyi ñaawtee fi ñu def góor ñi nga génn lëmbal dance mais loolu nga duggee léegi laa si njëkk a wax si métti yi ñu teg donc man musique laay def tey style boobu ama piano la tu vois donc moo tax ma génnee ko. ñëw di ñoddi à la américaine di garaaw garaawlu. parce que c'est mon style. samay style la. mais lan a xaar ci clip boobu parce que waa ji nee na ma clip bi damay ragal mu génn Jamra woote te bu Jamra woote yow rek yaay dem de man dama nag man la am maa ngi ñëw du def dara ndax xale defuñu fa lu garaaw fecc nañ daal voilà naka ñëpp xaar. xale yi daal lëmbal nañ fa fecc nañ fa lëmbal dance mu ngi war a génn bientôt Mame Matar sunu papa la duñ def dara ñu ne ay doomam lañ. da <laughs> <laughs> ngay ah, lu ma def. yow Mame Matar gi jéem a bu ma ci xasee ak Mame Matar de man dama ne Mame Matar gay sama papa la ñun ay doomam lañ. voilà bu ma jaxasee am ngeen droit am ngeen droit ngeen di lëmbal dance. nag xale da ngay def fii fu xale. xale da ngay def yëfu xale. mais à loolu lan lañ mën a xaar ci deux mille vingt quatre bi ci Lady Mounass mën nañ xaar album mën nañ xaar EP mën nañ xaar nga signé ak beneen label pour pour mën a job ak ñoom wala ma suba teel wala Faramareen music wala peut-être yeneen label yi fi nekk. waa album bi moom daanaka pare na donc euh, ñu ngi liggéey te xam nga ni temps yi la maa ngi woon Abidjan man heure bu ma demee damay profité def foofu dara boo seetee man ñàkk laa ëpp ñu may liggéeyal ak Gambien yi. bi mujj bi maa ngi ko liggéey benn artiste togolais gambien muy Willy Chris ak AK man sama son yëpp ñoom ñoo koy def Gambie Conakry Abidjan voilà. mën ak ak yeneen label yi. mais pourquoi pas bien sûr. pourquoi pas sa bët. man daal ku ñëw rek je suis ah, ku ñëw rek mais maa ngi nuyu sama xarit sama frère Maxou Subatel. voilà bëri na ay xarit de maxu maxu moo doy waar ko doy waar. daa baax. <laughs> mais Zénith door nga fa dem. loolu ah. buñ ko sentiree rek. non mais Zénith pour ab sa niveau sa niveau yegg na Zénith. ah lool de am na moom. Uh-huh. ndax nu ku nekk da ngay gëm sa bopp. voilà te man ma gëm sama bopp. fii sa booy jaay Dakar sama ne la gëmal sa bopp da nga siy génn sàcc sa boo koy def nga ne lii mooy sa liggéey da ngay sàcc gëmal sa bopp nga am si fulla ak fayda. te dama gëm sama man gëmuma kenn de sama bopp laa gëm la na damay sante dama yor xol yenn saa yi na damay ñëw gis son yi di si challenge di kii am na ku ma wane ma yow lu tax yow artiste bu mel ni yow mosuma ko gis lan moo tax ngay challenge si jàmbur del challenge sa boss artiste da ngay kii ma ne ko non non la kii waxoon loolu waaye dama ko tontu pour lan yow nit ki way na bu sentir def challenge da ngay challenge si son man ni nga may ñëpp laay déglu Sénégal Sénégal ñëpp laay déglu artistes yëpp laay déglu encore une fois xale jigéen yi ñuy dóor dafa dafa war a dagg daal voilà. voilà yéen ñi nga xamante ni yéen ñu doon bàyyi xel euh, moom jox ko mu euh, tàggatoo ak ñi nga xamante ni ñoo ko doon seetaan à travers Dakar Buzz ak ban message euh, message ngay lancé jëmale ko ñi nga xamante ni ñoo di les autorités ak jigéen ñi nga xamante ni ñooy souffrir ci seen biir néegu sëy waaw instant bi moom réew mi moom ah dëgër na metti na mais yàlla baax na yàlla na di ñaanal aussi sunu président Diomaye yàlla yen bi oyof si kawam te mu gëstu xale yi jeunesse bi ak Sonko tu vois ñi gëstu ñu daal parce que xale yi dañoo sonnoon lool ndax ñoom te xam naa ni sax lii lii ñuy kii nii si sama li ma jàpp xam naa ne léegi mu neex incha allah ndax xam nga réew yor ko bu bees yombul mais nañ ñu gën a gëstu daal jàppale xale yi comme ça xale yi mën a arrêté dugg si mbën gaal gi voilà xale yi dañoo sonn billaay dañoo sonn nañ leen gestu daal suñu yaay booy sunu rakk yi suñu tante yi tamit di leen wax rek nañ nañu fighting man góor ñi laay wax man góor ñi dóore man laay waxal man aw maa ñoom affaire parce que góor ñi dañoo soxor non man xaw ma rab moo leen dugg xaw ma temps yi dëkk bi dafa doy waar de est ce yi jinne yi dugg ñu leen mais attends dóore yi dafa ëpp non non non non man moom sama rab bi man rek lay gis gisul keneen man moom damaa mer dëgg la waaye man rek lay gis sama bi moom moom amul problème waaye nag lu mu gën a bañ mooy ku koy yënkal li ma gën a bañ lu yëngal samara rab moom dama koy nga fekk ma si biir ñu bëgg ma toroxal wala nga bëgg ma jaay doole sama bi moom day génn man su may kii fi tànk dóoruma la ba nga tëdd ma am jàmm voilà soo ma gaañee moom ba deret gi génn ndawal ah dama amee rab de soo ma dóoree moom ba dere gi génn moom bu yeboo nga daw ndax lu ma yor dama la koy yen yenn yi du ma ko def yàlla nañu yàlla may góor yu baax góor yi am yërmande góor yoo xam dañuy naxtaan voilà waaye góoru góoru yaay may ma ñeex yi góoru bàyyi peel yi nga xamante ne mootu ñu mbuus yàq mbuus xas saaga lañ xam si jigéen mbéj yàlla nañu yàlla musal si yooyu góor góoru bàyyi yi nga xam amuñu benn njëriñ mbéj lañu xam ak rokki rokkal Fatxul Fata moom la ñuy jaajëfal bu baax a baax. waaw sama xarit bi borom iPhone wi di gërëm Zal maa ngi nuyu ñëpp aw ma seen fay di nuyu nag ñoom bébé aji danseuse bu mag bi daa ñëw sama clip indi ma xale yi mool xale yi lëmbal fa lu neex di nuyu Pape Didier su ma nuyoo daal su ma limee damay juum mais maa ngi nuyu ñëpp ñëpp ñëpp di la nuyu di nuyu Fatima Assou ñëpp laay nuyu daal sama xarit yi voilà. Mouhamed Fathoul Fata maa ngi koy siyaar bu baax a baax di ko ñaanal jàmm bu bëree bëri borom turu sell bi Fathoul Fata loolu moom ay ay ay mbir la yoo xamante ni yaakaar naa ne on n'a euh, di ci di ci di ci wax waaye daal en tout cas mi ngi def ay merveille euh, képp koo xamante ni bëgg nga téléphone euh, demal nga seeti ko mi ngi ci diwaanu Nord Foire boo jàddee rek tali bi jëm Nord Foire da nga ko fekk mi ngi jaay ay téléphones yu baax macha allah di ko ñaanal jàmm ju bëree bëri di ñaan ci réew mi yàlla na fi yàlla def jàmm Serigne Mountakha Mbacké yàlla na yàlla guddal fanam ak bépp kilifa diine Lady Mounass di la wax nga gën góor góorgóorlu yoon bi bëri na xaaxaam te metti na te boo ñemewul euh, yaakaar naa da ngay dellu ginnaaw Seydou laa ci àndaloon ak Abdou Saliou jërë ngeen jëf yéen ñi nga xamante ni yéen ñu doon bàyyi xel à travers Dakar